États-Unis d'Amérique et comme ça, gëmuma sax ne connexion bi dina baax yaakaaruma ko yaakaaruma ne connexion bi dina baax dafay dafay suicidé gëm ma ko woon bëgg ma woon sax gëm waaye Gabriel Kane ba mu génnee Gabriel Kane ba mu génnee def euh, vidéo dal ci kaw Adji Sarr ah, waaw ci laa ne nag ci laa ne kon dëgg la parce que man dama yaakaaroon ne sax gars dañuy wax rek. diversion mais il paraît que Kañ Gabriel Kane dëgg la Adji Sarr dafa taal xaar leen xaar leen xaar leen ma dëggal leen ko waaw Adji Sarr Gabriel Kane daf ko descendre deux minutes dafa jaay Aliou Ndiaye xanaa yow Aliou Ndiaye sa di jaay la dengue. like leen gars yi partage xaru xaru pendant deux ans chaque mois damay xaru damay xaru mhm. gis nga ni yaay yàmb dañu la waroon lay benn yoon noppal ñëpp et on rendrait un service à ce pays génn sécurité ah, tu m'emmerdes à la fin d'accord comprendre Gabriel Kane dafa bëgg sauver boppam Gabriel Kane elle veut se sauver Brumel tu as tout compris ñoom ñaar ñëpp la xanaa du ma moo ko doon encouragé ay temps dégg nga nee na ko man du ma yambar ñan ñoo yambar yi waa Pastef ñoo yambar nee ko bu la neexee nga est ce que du moom ci boppam moom moo distribué moo ko distribué. gars yi laaj leen partagé leen. ii saaga na ko def nee na ko doomu cot <laughs> dañuy divertir rek wax nga dëgg vraiment ñoom ñëpp a yem <coughs> man loolu taxoon bëgguma ci wax man gëm woon sax ne dafa lakk dafa lakk euh, euh, euh, nu mu tënati. aji saa gëm woon sax ne dafa lakk dafa lakk. Euh, nu mu mat laa mais nag lii lan lay wone lii muy woo jaajëf lëfatiti mooy Adji Sarr li mu fi yëpp terewul li mu si soxla woon amu ko xaalis la doon wër amul xaalis Gabriel nee na saa yu demee ba soxla xaalis rek ci lay commencé def bu pour buzz voilà léegi lii lan lay wane Mamour Diallo toppatoo ko ni mu ko waroon toppatee Macky Sall toppatoo ko duñ ko wara a toppatoo jox nañ ko xaaliss bi lek na ko jeex na parce que location dafa cher te ci dafa tam appartement yu bax comprendre légui nak dem ba di tal ay matelas loolu ku jaxlé moko moko def té akku Ousmane Sonko moko dal parce que wa APR ay workat lañu Khaliphone Sall <laughs> mom mi tamit Khaliphone mom mi nga xamné mom tamit dafa topone euh euh APR mom tam wonenañ ko. mu obligé dem ci Ablaye Diop xaas xam nga ci Ablaye Diop xaas la mujj di wax ne moom ci géej gi lañ nekk mais dama bëggoon wax rek l'essentiel avant live bi di ma defal leen umas paaw bëgg nii defe naa bii la euh, Kaliphone Sall non defe naa du du bii de wane nañ ko mu dem ci Abdoulaye Diop xaas waaw ah, gisuma ko nag gisuma ko sax gisuma vidéo bi mais bëgguma perdre sama temps ci ay Californie ak ay ah, surtout que tey sama live mooy mooy loolu ak Californie mais damay kan moom tedd na parce que am na lu mu ciy am léegi nag daf ci bëgg raxasu ba set moo tax muy attaqué Adji Sarr Ousmane Sonko nag euh, li tax sax ma tudd affaire Adji Sarr mooy compte mars bi dafa mujj tàbbi géej ndax agent judiciaire de l'État dafa ne woon dafay def appel pour ñu récuser waaye dañoo xam ne bu ñu demee tribunal boobu de Ziguinchor mën nañ fi amaat beneen défaite parce que juge yi léegi dañu commencé jéngu parce que Aïssata Tall moo fi nekk waxoon naa leen Aïssata Tall gars yi jigéen la gars ngeen baal ma jigéen yi xeebuma leen mais ñëpp xam nañ ne góor Tall Aïssata Tall la ñu gën a ñeme waaw Marème Diop madame Guèye Diop moo njëkk jëngu après Sabassy Faye jëngu léegi nag bu ñu demaatoon Ziguinchor beneen juge dafa nar jëngu te loolu dafa naroon indi révolution Sénégal moo tax Macky Sall ne xaaral bugguma jël risque cap si laa jaajëf mu ne xaaral bugguma jël risque dem Ziguinchor gars yi ngeen baal affaire Mame Niang li taxoon ñoom ñu bàyyi ko nga xam ne c'est pas solide c'est pas un dossier sérieux ndax deux cent millions koo xam ne dafa sàcc suñu trente deux milliards nit wax ne dafa sàcc suñu xaalis Prodac nga bëgg éliminer Ousmane Sonko loolu xel mënu ko nangu léegi nag fiche de parrainage yi incha allah lundi teel la lan suba sax suba décision bi génn gars yi war na mën a dem DGE bu ñu demee DGE ñu jox leen seen fiche de parrainage mais grève de la faim bi il faut ñu wax ci Ousmane Sonko pour man grève de la fin bi na ko def une semaine après mu arrêté parce que vraiment. ñu bëgguñu Ousmane Sonko mu dee Macky Sall li mu bëgg mooy Ousmane Sonko dee. grève la faim bi lenn rek la pour wax ne delluwuma Sébikotane parce que temps yi dégg nañu Madiambal Diagne jox ne Ousmane Sonko 150 000 lañ koy dépensé dañuy dépensé ci moom principal ci patata dañoo xam naa dañ ko bëgg delluwaat Sébikotane grève bi tamit pour wax ne damay bokk ci élection yi mais surtout grève bi li ma leen doon wax temps yëpp Ousmane Sonko yoon mu nekk kaso nee na nag dafa bind benn poste Ousmane Sonko dafa bind bi. Euh, ni mu ko waxee woon Nefertiti li ma ko waxoon yow doon wax ak yéen ñi ma doon wax ak Ndeye Ba ma doon laaj euh, waaw euh, Ndeye Ba mi ma laaj kon Ousmane Sonko na lay defee message nan lay joxe ndigal ah Ndeye ma ne la dafa war a dem ci fekk compte Facebook mu bind ko foofu te Ousmane Sonko loolu la def ci compte voilà ci compte Facebook am la dem foofu la joxe message bi te message bi lan la wax résister ak dictature nee na Sénégal dafa am dictature. kon dañoo war a résister moom nag nee benn façon résistance la am mooy xeex kon ñun ban façon résistance la ñu mooy marche li mu def baax na mais pour man defet Ousmane Sonko ba léegi mënoon na def lu gën a graaw mooy mu joxee ndigal bi parce que ñun ci guerre la ñu nekk il faut que Ousmane Sonko jaar ci digg bi génn leen marché leen bu ñu leen teree marché def leen comme leen loolu la waroon wax mais Sonko ba léegi joxewul ndigal bi ma yaakaar bu mu bëgg ba tey sa c'est bon parce que wax na résister ngeen résister nañ waxante dëgg resté rek El Malik, le mot résister kañ ngeen ko dégg waxante dictature ngeen ko résister ngeen il a fallu Ousmane Sonko dañ ko man man Ousmane on dirait que tu te dans ta situation de prisonnier on dirait que tu te régis dans ta situation de prisonnier. ba ñu naan la yaa yor télécommande be yaay zappi fii yaay seetaan li yaay seetaan la alors que yow waruloon nangu Macky Sall tejj la ya ëpp doole Macky Sall da nga wara genn nga xex bo xexul tu vas mourir en prison man man nekk ma fi di nap nap man ak Baye Ndiaye activiste mo fi nek di wax Ousmane Sonko dañ ko war a libéré ak temps tamit Ousmane Sonko Tounkara jël na message boobu mais message boobu man ça fait 2 mois bañu japp Ousmane Sonko ba légui dama ne di yoon dafa wara genn waye ñu jox leen victoire man leen victoire bi rek warul doy victoire pour mu am sens il faut que Sonko gagne. pour une victoire bi am sens il faut que Sonko gagne. mu xeex il faut que Sonko gagne mu xeex xeex bi nak bo defee grève la faim sénégalais dañ lay seetaan dañ lay sétane nga dee il faut nga joxe ndigal dougal len ay marche un million de personnes gagne waye tok rek né damay def grève la fait. commencé nako est-ce que taxna est-ce que tax na euh, euh, nit ñi génn te grève la faim bi man dama kaa mel dama kaa yëg kañ la ko commencé démb ban ki démb bato bi ma nekk dañuy def saa yu ñu liggéey ba wàcc guddi ay côté dix heures gaa yi ngeen baal côté guddi gi dafa amoon benn lakk bu tuuti rek lakk bi sax garaawul mooy xam nga bato bi ñu amee ay mbalit am foo xam ne foofu lañ ko duggee incinérateur foofu la ñuy foofu nag dafa amoon benn lakk bu xaw a mu dévoré tuuti rek taxaw kaa moo loo taxaw ñu tëj restaurant bi maa ngi xiif xiif boo ay côté dix heures ma nekk si lii de du ma du ma ko tëddaale il faut ma xaar ma xaar ba onze heures xam ne ah affaire yi pare noonu laa mujjee de ak xiif sama xel ci la nekk ci Ousmane Sonko man maa ngi nii reer bu ndaw bii rek ma bañ a reer moom ma sonal waaw kon Ousmane Sonko grève de la faim bu mu def trente jours kenn mooy dégg grève de la faim bu mu def trente jours kenn mooy dégg la bi ci benn côté ànduma ci ànduma ci ànd naa fe Sonko warul nekk fii di xiifalaat trente jours loolu vraiment bu ko defee day koy day da koy yombalal Macky Sall am na ñu ñu koy wax même Babacar Touré sax bu koy wax da koy yombal Macky Sall day dee wala bu nga fi am ay problème la ren taxaa kene ko yow jàppale woo kon man tamit du ma fi nekk naan damay inna lazina amanoo wa amilu saalihaati watawaataw bil tàndarma watawaataw bil tif tuf tuf tuf euh, nekk fi di ñeeramtal di ñeewantal tàndarma du ma ko def primel tàndarma ñeewantal tàndarma tuf gars yi ñu ngi may déglu de primel pap ñoom Ousmane Sonko daf may déglu waaw parce que man nee naa ko yow ñii sëñ mu taxaa mii nga topp ah yow ñii sacrifié la bëgguñu la ñoom ñoo tax ñu dugg kaso dégg nga temps yi Ousmane Tounkara nu mu sonnalee soxna Baali Mbacké parce que xeex bi moo toll foofu Ousmane Sonko bu xeexul day dee ci kaso bi waaw li mu def nag c'est un premier pas mais il faut que mu jël responsabilité def comme Gaza Israël ci guerre la ñu nekk waxal nit ñi ñëw leen ngeen génn ma daf message bi dafa war a reer leer waaye bind résister rek dafa yomb waxal ne affaire bi cinq mois moo ci des dañuy joxe suñu bakkat wala <coughs> Fatou Ndiaye yow sa nijaay ji Aliou jaay dégg naa dafa dal Macky Sall mais Aliou mooy kenn wóoluwu bu amee parrainage rek ça veut dire que Macky Sall lay liggéeyal bu ko Macky xañee parrainage ça veut dire que opposant la waaw ñun li ñuy wax mooy Ousmane Sonko li mu def c'est premier pas mais doyul ñun ci guerre lañu ñu nekk Macky Sall ci guerre lañu ñu woo waaye waaye neexul ba neexul Ousmane Sonko tamit. vraiment c'est un stratège dëgg la parce que ku la ne woon <laughs> ku la ne woon li mu liggéey nii dina tàbbi géej doo ko gëm ku la profito dindi Ousmane Sonko ci ci ci liste yi non Sonko nag gars man bëgguma di wax waxu yàlla yàlla yàlla yàlla parce que tamit yàlla yàlla bay si waaye nag vraiment moom ay mbiram yàlla def ci dugal loxoom waaw ay mbiram yàlla daf ci dugal loxoom ndax

il faut comprendre Je comprendre mais au moins la plus grande victoire de Ousmane Sonko. de l'autre côté on va se débrouiller avec ce qu'on a mais au moins si je suis content, le bon live 20 minutes pour le moment mais la victoire Ousmane Sonko la plus grosse victoire Ousmane Sonko. mooy fexe ba Ismaïla Madior dem dëmm bi en quoi jom l'homme à abattre quoi jom l'homme à abattre waxoon naa sa l'homme à abattre gis nga ñooñu ba ñu demee ba léegi ci li ñu commencé am victoire ñu am yéen yaakaar ngeen baal ma gars bu leen dem nag il faut ngeen may comprendre gis ngeen ma géej ma wër xool leen ma woon leen di basket aw ma dara sax fi mu leen nekk armas das helicópteros. Há um tráfico. É no campo Vamos olhar tudo paisagem. Tudo se anime. Basquete. Je pas le droit de filmer. Né? Fais le contact de l'île. Je né? reste là. Voilà. Légui. Victoire Ousmane Sonko. ci Antoine Diop ak Ismaïla Madior loolu c' est extraordinaire man Antoine Diop ba ko Macky ba ko bàyyee gouvernement bi gëmmeewu ma ko waaw gëmmeewu ma ko Antoine Diop moo bii nag ah lu ne jéem naa ko lu ne jéem naa ko mënuma débarrassé wu ci moom Macky day gën a soxor day gën a mer damay ragal bu boobaa mu rey suuf kon nag Ousmane Sonko moo war a jël responsabilité bi joxe ndigal bi comme ni mu ko defee résister résister bi mu wax c'est très bien mais doyul dafa war a wax waa Pastef dugal leen ay marche ngeen libéré ma boo leen dugalee marche sa Tall bu bañee wala préfet bi mu bañee ngeen se marche na un million personne génn waaye nag neexul ba neexul Ousmane Sonko c'est un stratège waaw ndax patience bi mu am moom dafa mel ne yàlla dafa ko bindal livre bi ne ko Sénégal nii lay demee nguur gi nii nga koy jëlee il faut nga nangu toog prison il faut nga nangu sacrifier toogal rek toogal rek ba Macky Sall dem ba yaakaar ne am na victoire dàq Antoine jom dàq Ismaïla Madior dem France di wax neutraliser naa Sonko waxoon naa leen Sénégal du duñ ko jox ay saagakat xam nga Macky Sall loolu la waxoon ba mu jógee New York après mu jaar France waxoon naa leen Sénégal duñ ko jox pour moom affaire bi jeex na moo tax mu dàq Antoine dàq Ismaïla waaye nag instant yi mi ngi regretté li tax mu dàq Ismaïla Madior parce que Ismaïla Madior mu fi nekkoon du seetaan sa sa basi def lu muy def parce que moom day day ñëw rek di jalgati mais Aminata Tall comme xëy na moom juriste moom xëy na moo gën a je sais pas man daal xaw ma waaw mais en tout cas lii c' est une victoire tellement extraordinaire tellement extraordinaire ndax yow nga jëkk woon Ousmane Sonko ci contumace bi nga fexe ba dindi ko vraiment Macky Sall li muy def dictature la yow tàggoo kenn Ousmane Sonko da nga kaa dindi Ismaïla Madior dafa xam nga loolu mooy nga bañ nit dañoo bañ Ousmane Sonko ba ay photom sax. dañ koy xolli ci siège am même am na benn arrêt boo xam ne arrêt Ousmane Sonko la tudd arrêt car rapide Ousmane Sonko la tudd arrêt car dañoo dem ba foofu waa Touba Baye Fall yi dañoo dindi photo Ousmane Sonko dañ koo bañ a bañ a bañ ba sax juge wax ñu dindi ko ci liste kii moo ko annoncé observateur Youssou Ndour moo ko ñëkk annoncé gars yi bañ ko gëm man bañ ko waxee laa ne c'est fini bañ ne dindi na ko ne dindi nañ ko. bañ ko dindé au lieu ñu jël décision bi Ousmane Sonko pour mu dem juge ne mu def appel amna amon na fan ko joxé amna fan ñu Ousmane Sonko mi ngi principal ñu dem ba Nous diko fa commissaire lañ ko jox que Ousmane Sonko nekku fa kon nous ñu won Ousmane Sonko xex lool Ousmane Sonko mi ngi principal. lu tax demoo principal lu tax demuloo ci ci Sébikotane nga jox ko euh, waa jooju mu indil ko Ousmane Sonko Ousmane Sonko nan la yëgee ne dañ ko dañ ko dindi ba ñu demee di ut parrainage ba ñu demee di ut parrainage lañ leen wax bokk leen ci liste bi noonu lañ ko xamee ñoom ñoom ba léegi gisuñu këy loolu gëm yàlla moo koy def Ousmane Sonko dafa gëm yàlla ndax boobu ba léegi mi ngi xaar di xaar di xaar di xaar kenn xamul lan xaar léegi nag ba ñu demee foofu ba ñu demee tribunal ci lañ leen ne. Bence de Deja. Aloha and good morning. Guy America Ohana. Bence de me, uh, your cruise director. As ah, promised, we're going to give you the updates. The team and I and all of our staff on board your home away from home have been working since the decision was made for your safety not to call upon our call today for Kona. And now we have a new schedule for you, a new freestyle daily. And that being said, it's <coughs> currently in the finishing touches of being delivered to your stateroom. Most decks have it. In the next few minutes, all decks will have it delivered to your stateroom. There's also some available at the guest wow, service desk. And this is a front and back, black and white, of page wow. 3 and 4, so you can understand the difference between the freestyle you received last night that was uh, intended for today, and now one that is on a revised version. And it does say revised on the top of it, and it's a one-page front and back. I ask you please look at that and use that for today. And that being said, some of our activities are going to be altered from where they were originally going to be because we've added more for you. Just to give you sense of our morning hours, we have our morning trivia, our hip Also, our cooking is not late making class. Those are actually going to be later this afternoon. It's now going in the morning. And this kakui nut lay was originally worn by the royalty of Hawaii. Bu waxee résisté dafa war a wax lan mooy résisté daf koo war a spécifié mais ne

centre de faire la grève de la faim. dégg naa Casamance y' a quatre vingt plus de gens qui en train de faire la grève de la faim waaw loolu la on, Sonko war a wax waaw comme Mali cent mille personnes deux cent personnes trois cent personnes ñu teg pression Macky Sall wax ko ne Ousmane Sonko dafay bokk waaw mel na ma annonce ma annonce to have everything done to the best of our ability, but always keeping your safety and the safety of all on board in mind. Mahalo will be back throughout the day with more information. dëggal delga delga doom wax l'instant Sonko attitude di résister Sonko kañ la koy génne message ba nga naan ma résister Sonko ba mu génnee ba mu nekk ci prison ba léegi ñaari message dafa def ñaari message premier message moo ba muy dem dafa ne boo leen abdiquer maanaam boo leen ma seetaanee ma jël sama bopp wakkirlu ci yàlla loolu la njëkk a wax après ñu gisaat benn message mu ñuy wax ñu ñuy wax ay cancer du sein dugg na fii génn fii man ban cancer du sein yéen mu leen ñu dimbali ngeen ñu wax waxu cancer du sein balaa ngeen wax waxu cancer doo leen wax suñu dëkk bii nga xam ne waa Guinée ñu ngi koy waaj a jël Ousmane Sonko koy waaj a dee yow un million de personnes nga am ko si sa page Facebook ngay wax cancer de sein balaa ngay wax cancer du sein yow Ousmane doo jéem a génn yow ba pare génn ba mu waxee lool ci semaine bi ci topp ci la bind message bi mu bind démba démb la bind message bi mu ne résister leen résister leen man benn façon xeex rek laa am mooy mooy grève de la faim yéen nag taal leen pono marché leen daf ko waroon a spécifié parce que ba mu waxee lool est-ce que tey ba ñu yeewoo dëkk bi dafa tàkk est-ce que gis ngeen marche lan moo soppi Ousmane Sonko nee na résister leen lan moo soppi dara du soppi parce que xale yi ndigal la ñuy xaar ndigal nag boo koy joxee dafa war a leer xam nga sëñ Mountakha dafa ne Touba ku fa politique dañ leen di sa digg ku fa def lii bu joxe ndigal dafay joxe ay ndigal yu leer ku sol la mu Pastef dinañ dinañ la takk sa digg ku fi manifeste ku fi taal na ah Ousmane Sonko li mu war a xam mooy mooy juge bi joxe na ndigal ne dama war a bokk Macky Sall jaaxle nag léegi nag le 26 dañu bëgg indiwaat affaire Mame Mbaye Niang est-ce que di ngeen seetaan Ousmane Sonko baña a ci élection ngir 200 millions yu mo wara a fay Mame Nia Niang Mame Mbaye di jema a kërëm parce que Mambay dem na ci banki né da fay jël xaalisu Ousmane Sonko waye fekkou fa dara comme fekkou fa dara kër Sonko rek fi dess te bu ñu ba Ousmane Sonko tok ci kaso bi ba deux Amadou Ba jël présidence ci 2024 bi ci 2024 ñom euh euh euh Anadji Anna ak soxna Khadi nu mu si tudd Kébé soxna Ousmane Sonko yi dinañ leen génne kër Ousmane Sonko man Mbaye Niang jaay kër Ousmane Sonko foofu wala ñu tojjate ko parce que ñu gis dara luy Ousmane Sonko Sénégal Sonko nag xëy na message bi may def mi ngi koy dégg Baye Ndiaye maak Baye jaay rek fi nekk di wax ne Sonko dégg nga Baye Ndiaye nee na bu Sonko deewee sax garaawul on avance <laughs> man nag egguma foofu waaw parce que Baye Baye Ndiaye moom foofu laa wuteeg moom moom nee na bu demee ba ba war ku jooy mu saaga dem ba dafa saaga ku fi jooy Ousmane Sonko dinañ dinañ def noonu sa ndey Sonko bu waree dee ci combat bi dafa war a dee ci combat man sax waxuma loolu man li may wax mooy lenn Sonko Macky Sall du sa baay Macky Sall du suñu baay ñun ñii ba ñuy wax heure bi ñuy tëdd heure bi ñuy suñu jabar di seet heure bi ñuy dugg Sénégal heure bi ñuy dugg Sénégal comprendre mbàkke mbàkke yu moomuñu gis nañ Abdoul Bara Dolly temps yi mu ngi tëb di dal di attaqué Sonko di attaqué Pastef mbàkke mbàkke yu moomuñu Ousmane Sonko nag li mu def nii ñu ngi ko ciy gërëm parce que tamit topp tàndarma tàndarma ñeewantal ñeewantal ah wan na sëñ Mountakha ne ko hey li ko Pape Alé Niang waxee li nga ma waxoon yëpp def naa ko li ma gars yi ngeen baal ma il faut ma accélère message parce que bi mi ngi daw ma wax leen li ma bëgg wax l' essentiel l' essentiel ci li ma bëgg wax je pense que sax wax naa ko l'essentiel si lu mu bëggoo wax naa ko Ousmane Sonko Fatoumata Binta Bango waaw namoon nañ la foo réeréew Ousmane Sonko yàlla moo ànd ak moom parce que moom ñun li muy xeexee d'accord ci d'accord ci parce que du yoon nga toog ci prison bi waaye yàlla bu la bëggee bëgg na la ndax moom li mu toog ci prison bi deux mois deux semaines xanaa léegi mat na deux mois deux semaines waaw deux mois deux semaines terewul yàlla indi la ko victoire ah ndax yow ci affaire contumace bi la bëggoon lañ la dindee léegi nag juge bi nee na nañ la dugalaat juge bi nee na nañ la dugalaat te yow agent judiciaire de l'état bi ndaroon dem tribunal tey pour wax ne dañuy dindi juge dañuy dàq juge Sabassy Faye ci ci ci dossier bi ñoom ñoo doon dem ba ci biir ñu ragal parce que xam nañ bu ñu demee ci tribunal boobu beneen juge day fibb fi mu nekk juge yëpp. gis nañ ne Macky Sall dafa ragal juge yëpp am pit waaw te Sénégal du ñu seetaan Amadou Ba ak ay Guinéens daal di confisquer Sénégal dafa am benn voix dafa am benn mouvement de révolte gis nga Sabassi li mu def dafa dugal boppam ci histoire Sénégal ak histoire Afrique histoire démocratie Sabassi résistant la billahi wallahi taalahi man maa ngi leen ko doon wax problème bi am mooy benn guerrier rek la ñu am benn général yàgg naa ko wax Brimel miyak yàgg mu yàgg na ma seetaan depuis deux ah 2022, mille vingt ah, deux maa ngi la doon wax problème bi ñu am mooy ne ñun benn général la am waa général boobu bu yàlla jëlee bakkanam wala Macky Sall tëj ko wala mu dem ba ci biir découragé ne xeexatuma ñun fan la ñu jëm looloo ñu daloon ci Sonko dañoo dem ba suñu général ñu jàpp ko Pape Alé Niang munul munul sol dalu Sonko Thiat Y'en a sol Dame Mbodj sol El Malik mënu sol ba ñu jàppee Ousmane Sonko neutraliser Macky Sall sax le mot neutraliser le utiliser il fallait que ñu am beneen guerrier Sabassi benn action la def de Sabassi benn action la def mais gis nga action yi mu def dafa mel ne Ousmane Sonko li mu def deux ans yi Sabassi benn fan du ma ne li Ousmane Sonko def moom kenn mënu ko def waaye Sabassi si Sabassi fay li mu def ci benn fan moom lañ doon xaar ñun guerrier deuxième guerrier boobu lañ doon xaar parce que justice mooy mooy nee naa leen Amérique bi ma nekk justice dafa am doole Trump mooy président mais fi mu nekk mi ngi ci kanamu juge ñu koy juge Sabassi Faye national il est entré entré dans l'histoire du pays moom ak Nafi euh, ndaw soos mu tudd Mariam Diop Gueye mais surtout Sabassi parce que Mariam Diop moom dafa dafa dafa wax rek dafa wax te man sax dama yàkkoon ci commune Macky Sall la bokk mais Sabassi dafa jëf te ni mu ko jëfee moo garaaw fukki waxtu ak ñett ñu topp la di teg pression naan dañuy génne di fay ay lamp ah di la jiiñ lu nekk di la woo di la menacer nga jàpp fi nga jàpp rek jàpp fi nga jàpp daal di génne décision ne boo leen may rey ngeen rey ma boo leen may tëj may ngi tëj ma boo leen di nangu sama xaalis ne naa leen Sénégal il fallait que ñu am beneen guerrier mu mel noonu te li tax Sabassy Faye li tax mu li mu def li tax mu garaaw mooy yeneen magistrat yi ñi ragaloon dootu ragal loolu tax nag agence judiciaire de l'État daal di teggi tànkam parce que xam na ne bu demaatoon Ziguinchor président cour suprême boobu lu mu faral Macky Sall faral Macky Sall pour mu jël décision bu mel noonu day métti xam naa nag dañoo dafa wax ak ñoom ne leen saay man li ngeen bëgg du mënu ko def waaw li ngeen bëgg mënu ma ko def moo tax ñu dellu ginnaaw bu leen leeroon ne li ñu bëgg dañ ko da koy def dañuy continuer léegi nga jóge ci contumace bàyyi nga ko kon ñoom nangu nañ seen defet kon Ousmane Sonko. bu demee te juge bi génn na décision bi suba bu ñu demee yóbbu décision bi DGE DGE dafay jox ay fiches de parenage bu ñu joxee ay fiches de parrainage waa léegi yéen yoo xam ne da ngeen tas Pastef ngeen jël Ousmane ko jox ko fiche de te tas ngeen Pastef waa léegi nan ngeen di def Pastef ngeen tas waaye tasu leen Ousmane Sonko Ousmane Sonko war na mën nekk indépendant wala candidat indépendant léegi nag loolu dafay yeewaat waa Pastef parce que boo ñu joxee suñuy fiche loolu mooy dem leen dugg ci koñ yi te bu ñu duggee ci koñ di ngeen gis ne Ousmane Sonko même li ci des bëriwul de defe naa décembre lay jeex dina am un million cinq cent deux millions parrain bu teeloon bu ñu teeloon bu ñu teeloon jox dinañ am trois millions te même lii sax même nii sax mën nañ fi am trois millions parce que fi mu nekk sabas yi daf ñu joxaat espoir sabas yi li mu def dafa doy waar parce que ñëpp a woon waaw parce que tamit rimel mi ngi koy wax jënd glace Ousmane Sonko dafa mel ni dafa dem ba ci biir mu nangu ndogal ah euh, waa Pastef dem ba ci biir nangu ndogal ñu xeex boo waxee ñu ne bul xeex parce que boo xeexee da ngay indi kawo te kawo boo ko indee Macky Sall day yokk ñaari at waxu dof loolu taxoon bugguñu xeex ñëpp découragé man mii bàyyi woon naa live une semaine toog naa une semaine def ma live ah parce que man dama ne je démissionne du Pastef qui a démissionné comme ni ko juge boobu waxee woon je démissionne saa yooyu yow mauvaise nouvelle mais bu yàggee da ngay am crise cardiaque bu yàggee da ngay am crise cardiaque mais Cheikh Baara Ndiaye bu leen ko fàtte Cheikh Baara Ndiaye maa ngi fàtte parce que avant sama sii wax Cheikh Baara moo génn def live cinq mille personnes bu ko seetaan bañ na man si sama biir live lañ ma wax ne Cheikh Baara Ndiaye mi ngi live man la ah Cheikh Baara tamit kuy live tu ñemewul wax parce que boo xaatee dañ koy tëj mais Cheikh Baara génn ki waat ne Sonko day bokk par force nga xam ne ñun lii la ñu soxla woon nee naa leen Ousmane Sonko kese kese kese benn général bu ñu ci génn li mu daj ñoom Clédor vraiment waaw mooy ko doon xaaree dafa daw dafa daw res dem na ba sës ñëpp tiit yaakaar ne on a perdu waaw ñëpp ci ñu bëri commencé woon transhumé ci Macky Sall journaliste yi transhumé ci Macky Sall ñu ñuy divertir ay lamb boo duloo des clash à la con ah di wax affaire lamb sénégalais vraiment nekk seen volet suus nekk seen xene time ñëpp découragé man dama dafa bàyyi man ma ne man c'est fini man amatu woon benn espoir ba fi may wax ak yéen nii attention Macky Sall daf ñoo jekku ba léegi de ba fi may wax ak yéen ba léegi nii on a perdu le Sénégal mais c'est le juge Sabassy qui nous a redonné espoir kon nag cas Ousmane Sonko côté boobu man yàgg naa leen kas ak waa cadre parce que dinañ wax loolu la ñu ut tribunal loolu la ñu ut tribunal loolu la ñu ut tribunal loolu la ñu ut tribunal mais mais xëy na ñoom lii la ñu gisoon je sais pas mais yàgg naa leen kër gi waxamaa parce que ay tappat la ngeen baal mais il ma conclure il faut que ma conclure parce que tey connexion bi kiiwul voilà Cheikh Bara balaa may fàtte moo njëkk génn wax li muy wax gën a joxaat nit ñi espoir ne am na ay autorités yu sutax Bara Cheikh Madiambal euh, Diagne li mu wax ci Cheikh Bass du dëgg mu joxaat nit ñi espoir ci suba si saba si jox ñu victoire bi victoire bi nag dafa tax sénégalais yi ne ah kon Ousmane Sonko bokkaat na dafa yeewaat sans compter aussi beneen facteur aussi yi amoon ci àdduna bi yëpp xam nga loolu yëpp dafa wane ne li yàlla bëgg li Ousmane Sonko li Sénégal bëgg Macky Sall bu gën a ko xañ moo a garaaw mais dañ ne moom mook Marème Faye ñoo tëj lu Ousmane Sonko gis ngeen loolu ba pare ñu wane ay Baye Fall ñu jàpp nit ñi di dóor sénégalais yi dañoo maar ba pare affaire Gaza bi am affaire Israël bi am àdduna bi jaxasoo c'est que palestiniens yi ñoo mën a xeex ñu leen di rey waxtuma la ak ñun il faut que ñu xeex sinon ñun yàqu nañu ñun ñooy gën a yàqu ba bu gaze billahi wallahi taala bu ñu xeexul Ousmane Sonko génn ñun ñooy gën a yàqu bu gaze li kon nag Ousmane Sonko grève la faim foofu laay jeexale gars yi bu fekkee bi day daw ma joxe sama message sama message mooy Sonko grève la faim warul romb trois jours quatre jours da ko war a arrêté li nga war a def mooy joxe ndigal bi waaye ku ndara dee ci grève de la faim eh, mais bërëmel dañu wax ne dëgg balaa nga fi nekk def grève la faim boo xam ne mën nga ci dee nekkaat ci suuf si euh, affaire bi gën a baax waaw dama wax leen Sonko mu arrêté grève la faim ñaari fan ñetti fan naka arrêté symboliquement la war a def na arrêté grève la faim li des mooy na joxe ndigal bu leer balaa ngay dee ci xiif mais deewal ci guerre deewal ci guerre boo gën ngay dee ci xiif xal nit ñi def leen ay marche Macky Sall moomuñu ba jur mais Sonko li muy def dafa yomb li muy def dafa yomb di nekk di xiifal boppam di di di stressé nit ñi ah dar fi indil boppam euh, crise cardiaque gars yi sax mën na profité bii bàcc bi muy def mën nañ ci profité sax dugg am lu ñu dugal ci perfusion mu dee ñu ne ko nag moom moo xaru na bàyyi grève de la faim bi na ko def benn fan ñaari fan bu arrêté bu bëggee xeex na joxe digal génn leen ngeen def ay marche bu génn na waxas yi génn na marché di continuer ñu libéré prisonniers yëpp ba pare ne Macky Sall Sonko day bokk da ngay defar élection yu leer bu ko deful nañu reyante boo ñu mënee rey ñun ñëpp Macky Sall rey ñu ñun ñëpp waaye li nga bëgg du nekk Ousmane Sonko dara nekk ci kaso ba 2024 loolu duñ ko nangu te bu xasee nangu nekk ci kaso 2024 dina fa toog ba 2035 dégg nga li naan Cheikh Yérim Seck duñ ko bàyyi mu génn booy da ngay xeex. Gaza dinañ amaat seen suuf dinañ amaat seen suuf moom seen bopp. waaw boo bëggee dara da ngay def dara waaw boo bëggee def dara da def dara waaye toog fii rek ji ji Sabaly Sall Sabaly moom li mu def Ousmane war na yee Ousmane Sonko ndax jur boobu dañ koy rey Sabaly Faye lu fi Antoine Diome nekkoon ministre de la de te xoolal léegi ngeen dégg ñu ne affecté nañ ko voilà dégg naa sax am na ñu ngi koy commencé envoyé xaw ay enquêteurs xaw ma di ko intimidé mais kooku jub imam la wane nañ ko muy noddu di di jàng alxuraan da ngay gëm yàlla waaw booy xeex sa réew nga def sa testament da xam ne yaa def sa testament mais nag boo defee sa testament waroo xaru bu ñu ko tuddee xaru mais waruloo def grève de la faim boo xam ne ñoom Macky Sall loolu la ñuy wax dañ naan da dangaa xaru waaw defal grève la faim un jour deux jours trois jours maximum maximum trois jours nga arrêté ko nga continuer di envoyer say message ci Facebook message bi nga ana wax fois maa koy wax une dernière fois message mooy waa Pastef dem leen leen dugal ay marche fii ba ba may génn chaque ñett chaque ñett fan yu nekk dem ngeen dugal marche boo leen dugalee marche bu préfet bi bañee génn leen te Sénégal yëpp laa wax nag na ngeen marché loolu Sénégal yëpp Dakar kese de Ziguinchor yéen a ko war a jiite parce que ki xamul dara lu dul li ñu am nii lan moo ñu ko may jigéenu Casamance yi nekkoon si tribunal bi trop xeex def teg pression sa basi donc Savas moom xam naa avec ou sans pression dafa naroon jël décision mais xeex boobu ñu jàpp ci ay nit loolu la Macky la xam Macky Sall jeexal na Macky amatul dootul xeexal Amadou Ba Macky Amadou Ba du ko jaral muy sacrifier biir di sacrifier biiru Marie Macky li mu bëggoon am na ko Macky leen rek la bëggoon fayu ci Ousmane Sonko Macky fayu na tëj na Ousmane Sonko yi fukki fan ak juróom fukki fan ak juróom cinquante cinq cinquante cinq jours tëj na ko ñaari weer ak ñaari euh, semaine ñu si waxoon Macky mënul lool sañul lool Macky xel bi xol bi giif na Macky c'est un tout c'est un xalpulaar ñëpp xam ne xalpulaar fier xalpulaar boo ko defee dara tànk fayu pël boo ko defee dara tànk fayu du am jàmm Macky fayu na li ci des nag dina xeexat Amadou Ba pour Amadou Ba nekk waaye bu demee ba gis ne Sénégal yëpp nag ah Sonko la ñu àndal bu boobaa sëriñ seen bopp nga xaayal Sonko mu bokk waaw kon Sonko loolu la ñuy xaar te ndigal bi bu joxee ndigal bi ñu def ay marches chaque jour ba ba ba mu bokk par force ñu def ay élections yu jaar yoon bu boobaa Macky Sall dootu ñu ko sax topp man ci ñu dañuy fayoon waa ay membres yi bokk ci élections yi élections yi jaar yoon Ousmane Sonko gagné bu boobaa Macky Sall dañ koy bàyyi parce que ñun bëgguñu Sénégal yàqu wax yëpp loolu la kon Macky bu demee ba ci biir mu xelam dellu ci ginnaaw mu dellu ginnaaw comme li mu def ak juge bi nii dàq na Ismaïla Madior dàq na Antoine Diop xëy na Macky mi ngi commencé kiif bu demee nag ba ba bàyyi d'accord waaye bu bàyyiwul dëgër boobu nañu geer ak moom geer ak moom bu ñu waree rey mu rey ñu tamit ñu xam ñu wan ne ko ñoo la ëpp doole fuuf te yàgg-yàgg dinañ la rey wala ñu dugal la ci kaso gars yi bàyyi la ma coupé live bi bàyyi la ma coupé bi sama connexion yi euh, lii sax amoon Ba nag fi mu nekk nii mooy ndara gën a soxal Macky Sall waaw ah, parce que moom ñooñu laay ragal ñooy ndara rey Sonko Sonko na arrêté grève de la faim du moo koy rey de ñoom Amadou Ba ñoo ko ndara rey parce que Amadou Ba bu ndara dugg àjjana dem bay dugg nekk président nga bëgg koo xaj Macky bu ndara dellu ginnaaw Amadou Ba du dellu ginnaaw kon Sonko il doit faire très très attention voilà di leen wax rek ne euh, euh, euh, kontaan nañu nag ci message Sonko ni mu ko waxee na ko arrêté na ko arrêté parce que ñun tamit bëgguñu Macky Sall profité ci loolu pour rey Ousmane Sonko gars yi bàyyi la ma coupé parce que connexion bi tey mooy loolu lii ma am nii sax 45 minutes sax yaakaar moo ne dinaa ko am suba incha allah ñu gën a continuer voilà xaaral ma ko connexion baa ngi daw